ma bàll Balla Gaye wax na wax Balla gay nee na dafa soxlawaat Tapha Tine war ko joxaat ndeysaan deuxième bu tàng jër bàll su ma dégg ci say wax barke yow mal xeama la kabar da nga di tafaatin lëwal bu tàng jër la naan ci yow tey dafa war a naanaat deuxième bu tàng jër non non non bàll tafaar tafaar du la seetaana noonu barke yow mal xeama la kabar bàll na nga jàpp ni guddi yu toll nii cent pour cent bawal bawal gi jóg nañ xam ngeen cent pour cent Dakaaru cent pour cent Pikine nag cent pour non non fee eh, un million pour cent barke yow mal xeama la kabar bawal bawal taxaw nañ Balla Gaye Balla Balla Gaye gaynde géej gaay dafa maa nga daana nañ nii bokkunu de seet nga xool nga xool nga loxoy bàll yi xool nga loxoy loxoy tafaa yi ndax xool nga tafaa ni mu ñoole barke bi mal xaama lekk tafaa mi gëm naa ne ba fumut foliwul caaxaanu amul yërmande ku mu dóor barke bi mal xaama lekk ba ku may korpac nga faatu fa yàlla non balla tafaa du ko du ñeex ñebe de comme ça ni nga daane mulloo ñëw daanaat ko non non yow mulloo sax jamono yi toll nii pour nga daan mulloo problème la de balla ndaanaan nga jàmbaar nga balla ndaanaan nga jàmbaar nga def def nga fi lu ne dafa mel ni ku baax balla balla dafa mel ni yaa ngi jëm kaw de yaa ngi jëm mag bàkkee mal xaamal ak bat balla la battal sa biir bi ba xam yaa ngi doj ay doon ju wala yaa ngi dem ay doj ay doon ju ngi plé bu fekkante yaa ngi di doj bu lux bu lux bàkkee mal xaamal ak bat balla dafa bi maa ngi dem retraite kenn du yow balla gay Balla ñeme na la de Tafa takkal sa fit wi barke bi mal la ak bar léppal ba waxal ca xeex ba tuy pël baa kii ba nu mu tudd séeréer ba da doon xeex séeréer ba ñaf ko kurpañ ci fii barke bi mal xeebal ak bar gaay naa ko àndal ak sa sogo di àtte pël bi naa ko ànd ak benn bi naa ko àndal ak ca xel ma naa ko voilà ci xel moomu foofu la ma dóor Tafa defaral sa xel mii nga daas Tafa daasal sa loxo yi barke bi mal xeebal ak bar bis boo daasee loxo yi non benn mër du la ñemee roi de Charine boo buggee mu dugg bawal daasal loxo yi. Balla Gaye nag am nga fit de Balla jamono fi mu toll nga ne liis taxaw ne su mu kucc mel ni ginaar goo xam dangaa góor say nen naan jox leen ma jox leen ma tafaatin chien de bawal hmm. chien waxuma chien de chien de bawal xaaral Tapha Boy wax ci moom da ngay wax loo xam da nga wax loo xam maa nga noo barke bi mal xaama nag daal la yaag taxaa yéen a ngi noonu nga ko gaa yi tëgg ñun soxla nañ waaye bu boobaa gëm naa ne bañ bu wadd des bañ bu damm dina fa am deret dina fa bëri luqi ñax la ma luqi